direct ci Télé Sénégal euh, salaamaaleykum. direct laa nekk. waaw sëñ bi yaa ngi en direct foo ñu woowee. maa ngi wootee Italie. Mamadou ah. Aliou Sow. Aliou Sow Italie. Mamadou Aliou Sow Italie. Mamadou Aliou Sow Italie ñoo ngi lay jaajëfal bu baax a baax. maa ngi rafetlu seen liggéey. merci merci ñoo ko bokk. di leen ñaanal jaamu di ko sàkku ci sénégalais yëpp. amin amin ñu bokk. di ñaan suñu borom defal ñu jàmm. amiin amiin amiin ñëpp jote ci. ñun nag dañoo am xol yu naqari torop parce que bu ñu demee ba tey benn citoyen ba dëkk Sénégal juddoo fa yaroo fa màggee fa. Mhm. di fa dund. Mhm. ñu tere ko ay droit am. Mhm. loolu dina doon loo xamante ni dina ñu naqari torop ñun ñi nga xamante ni ñu ngi nekk si biti te dund ñu loolu ñu ngi dund tubaab bi loo xamante ni bu ñu sañoon suñu dëkk. tubaab yi. ni ñuy lu ñu dund fii ci réew tubaab yi mm-hmm. ñun citoyen sénégalais mënu ko dund ci biir réewam te mu juddoo foofu màggee fa yaroo ñun ni ñuy def ban xalaat la ñuy am te fi Macky lii mu nekk di def nii defu ko kenn boppam kese la ko nekk di def te ñun dañu am lu ñu naqari tool wallaay lazim léegi-léegi bi may bi balaa may woote maa ngi jóge wax ak sama benn xarit mm-hmm. man daara jolof laa dëkk man li may wax ragaluma ci lenn parce que man man ak Macky Sall ñoo bokk na da ko bandam yi ñuy wax noonu la nit ñi war a génne ci seen xel yi parce que Macky Sall mii mu toog ci dëkk di di nit ñi di tëj nit ñi keneen bi di tëj mooy ci cinq cent personnes ñu ngi leen jàpp dugalee Mamadou a lay ñaan am na kàddu yi nga xamante ne vraiment doo duñ ko mun duñ ko mën a duñ ko mën a nangu nga ko non du ma ko wax waxu ñàkk teggin loolu moom xam naa ne du ma ko wax du ma ko wax dañ leen di ñaan rek dañ leen di ñaan vraiment waaw dañ leen di ñaan rek <laughs> am na loo xamante ni ah. ñun ñu nekk si biti buñ koy dund bu hmm. xoolee suñu réew mi muy doxee dañuy am lu ñu naqari torop hmm. wallaay daal hmm. ñun faraluñu Sonko mais kuy doxal dëkk bi lañu bëgg mu doxal dëkk bi effectivement Sonko moom la ñu faral moom la ñu bëgg mu doxal dëkk bi parce que moom moo pare pour doxal dëkk pour liggéey 15 ans impôt et domaine musu sàcc 100 francs léegi ministre yi toog fii nii di sàcc suñu xaalis di ñu ñaawal par bangam bi nga xamante ni ab jëloon la danaan topp ay nit ci Afrique centrale bi ñu ay Gabon di dem di dugg ci ay gaal di ñaan ay nit moom lay moom mooy réerle benn un milliard huit cent quatre vingt ci këram ñaata milliards dafa confirmer ni lu Ousmane Sonko doon wax ni gaa yi sàcc milliards dugal ko seen kër yi moom mu ngi yor dafa confirmer waxu Ousmane Sonko boobu noonu loolu nag nit ñi di dund loolu sénégalais di dee ak xiif munu ñu feebaree munu ñu faju bu ñu am bu ñu xiifee mënuñu lekk mënuñu dem ci école yu baax yi seen doom ñu ngi nii yóbbu leen ci dëkk tubaab yi ñuy jàngi pétrole dinañ ñibbi si gis nga doomi Aliou Ndiaye commencé na ñibbi si la takk na jabar pétrole bi mu ngi di ko teg ci poste yi loolu bu yeboo Sénégal ñu xam loolu du wér ñu xam loolu mu leer leen nañu seen seen bopp yi wallaahi seen doom yi dinañ ñibbi si seen paa yi noot nañu dinañ ñibbi si ñoom tamit seen doom yi di ñu noot te Sénégal yi bés buñ ko nangoo dinañ continuer di ñu noot te yow ma xiyaamati jaajëf maa ngi leen di bëgg bu baax. D'accord merci. di ko jaajëfal baax a baax moom Mamadou Sow doon wootee euh, ah, euh, wi comme ni mu ko waxee woon itam ah dañuy ñaar jéggalu ci mbokk internet yu vraiment mais am na kàddu yi nga xamante ne euh, duñu ko duñu ko mën a jàllale aussi ci antenne bi donc mbokk moom tamit ñoo ngi koy jéggalu bu baax a baax ah, mais tamit comme on dit on est des responsables donc am na ñoo xam ne suñuy kilifa lañ du amuñu benn parparloo ci wàllum politique nekkuñu fi pour Mademba nekkuñu fi par Massamba dañ leen a ubbil antenne bi pour yéen ñi nga xamante xamante ne yéenay mbokki a jàllale seen message gën a euh, mën a ñaax ñi nga xamante ñoo fiy nekk ñu gën a bàyyi xel ci askan bi mais aussi tamit yenn kàddu yi ko nangu euh, ñu koy bàyyi ñu koy teg suñu ay ay kilifa vraiment loolu moom dañ leen ciy ñaan rek euh, yéen ñii di seetaan bëgg participer émission bi aussi tamit ku ci nekk ak li la soxal certes ndax ñu ñoo ñun ñoo leen bëgg jox antenne bi ngeen joxe seen xalaat waaye itam ci yar ci teggin ak ci respect euh, ndax ñi nga xam ne ñoo seetaan itam ay kilifa lañ te ku ci nekk tamit euh, ak fi nga far rek comme je l'ai dit tantôt ku nekk ak fi nga far mën nga caa àddu mais tamit que que dans dans le respect des uns et des autres ñun loolu la sàkku ci yéen loolu la ñu te ci loolu la ñuy di euh, liggéey donc di jégalu bu baax a baax euh, mbokku internet boobu di rafetlu euh, participation ma ci biir waxtaan bi mën ngeen def ni moom soo leen jaaree ci 77 810 90 90 ngeen mën ba dugg dugg en direct bokk ci waxtaan bi ma fay jaaree itam di nuyu bu baax baax Malick Malick Mbodj Malick maa lay maa ngi lay maa ngi lay jaajëfal moom nag partisan Ousmane Sonko nee na Sonko rek ah, di jaajëfal bu baax a baax Tony Tony Mendy Tony dama dama Euh, di jaajëfal les le sauveurs les sauveurs les sauveurs moom dafa mel ni fan sama wala moo gën la Gilbert Cyprien Préra Serigne Ndiaye Ndeye euh, Maysa Dieng Ah, Nicolas Ndione maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax borom euh, France maa lay maa lay jaajëfal bu bu bu baax a baax ak ñëpp ñi nga xamante ne aussi ñoo ngi ñuy euh, teewlu jamono ji ci euh, direct bi maa ngi leen di nuyu di leen jaajëfal ah, fàttali leen aussi information bi 16h bu jotee di ngeen am en direct point de presse bi nga xamante ne Ousmane ko dina ko def tey nara addu bu baax a baax ci mbiram ay kii polémique yi nga xamante ne indoon na ko fi bésub semaine passée bi nga xamante ne moom jotoon naa def ay révélation ci. liquide bi nga xamante ne moom lañ ko sotti woon bésu fukki fan ak juróom benn ci weeru mars ba muy dem wuy ji euh, yoon moom nee na la li leen nag tentative la woon ba waxoon na ne euh, fii ak ay fan yu néew daana ci gën a génnaat gën a indi ay détails ci li ne tey nag xam naa daana ci gën a àddu bu baax daana ci gën a àddu itam ci nemmeeku tuur bi ak jafe-jafe yi nga xamante ne jot nañ koo teg euh, ci kawam ni koy démb ca village bu ñu tey ba tey sax bokk na ci li ñuy waxtaanee donc à partir de 16 incha allah di ngeen ko am en direct euh, fii nii ci euh, télé Sénégal dalaa du leen ci euh, ci xam naa dañ am benn dispositif bu important bi nga xamante ne dañ leen ko dañ leen ko tegal à l'occasion ngir ñu gën a xam itam li nga xamante ne moom la Ousmane Sonko fas yéene à partager ak sénégalais donc 13 heures actuellement jot na xam naa su suñu amee suñu dernier internaute du jour ñu daal di koy jël laata leen jox rendez-vous incha allah mercredi laata mercredi sax ci kanam tuuti 16 heures jotee ci conférence de presse nga xamante ci point de presse dina dina ko def lu ko mooy le rendez itam euh, c'est euh, le mercredi à de 17h ci suñu émission bi nga xamante ne dañ leen koy defal saa su nekk mercredi bu jot nga koy am à de 17 ak itam vendredi euh, ñu dellusiwaat ci émission bi nga xamante a dugg a moom la leen Télé Sénégal daal di indil ngir yéen yi nga xamante ne yéenay yoon it ngeen gën a mën a xam euh, li xew ci biir réew mi ngeen mën a dugg itam di joxe seen xalaat ci ni réew mi di doxee ak li nga xamante ne moo fi amee ci ay fait ak i eh, xibaar rési su amee ku nekk ci ligne bi euh, ñu jël ko lu ko mooy itam ñu bamtuwaat information bi rek maanaam bu 16h jotee incha allah rabi dañ leen dëgtal en direct Euh, point de presse bi nga xamante ne Ousmane Sonko dina ko def ginnaaw bi nga xamante ne moom semaine passée bi muy lancé les euh, de la commune moom jot na ca àddu ah, ne euh, bésu fukki fan ak juróom-benn ci weeru mars ba dem wuyu ji yoon ah, te ñu mu amoon ci ay jafe-jafe yu métti ñu sotte woon ko ab liquide liquide boobule sax Ousmane Sonko waxoon na ni daañu yóbbu ay yéreem ci bitim réew ngi ñu def ay analyse ngi ñuy xam ko sotte lool lañ ko sotti loolu noonu lan la doon moom lee mu daat mu jot a xamle que ne liquide boobule nag. benn poson la bi nga xamante ne mënoon naa gàllankoor bu baax a baax wérgu yaramam la donc ni ko tey xarit nañ mu gën cee indi ay euh, leeral sénégalais gën a xam lan ak lan la ñu teg ci kawam mujjantal ga lan la donc euh, tey la à partir de 16h incha allah en direct ci télé Sénégal waaye itam daana at bu baax a baax ci nemmeeku tour gi nga xamante ne ni ki dem moom Ousmane Sonko moo ngi woon ca département bu Tivaouane bokk ci région bu euh, Thiès mu nag jëlee yu métti ndax gazé nañ ko fa ba sax ñu nañu ab bi nga xamante ne moom mu nga fa woon ca village ba doon am ay ay jafe-jafe bu baax a baax ci wàllu wér-gu-yaramam lii leen nag vraiment mbokk yi tey moom lañ doon waxtaanee dégg nañ ci euh, témoignage yu am solo yi nga xamante ni ñi yéen ñi di seetaan euh, def ngeen ko jëmee ci jëmee ci euh, jëme ci jëme ci euh, jëmee ci mbir moomu lee am na ko may interpellé naan ma euh, Ndoye Ndoye Ndoye maa lay nuyu bu baax a baax ah Ndoye xool ma xool ma rek Ndoye Ndoye <laughs> Ndoye Ndoye Télé moo xew moo nekk jamono donc bu kenn wutee émission bi nga xamante ne moom laay def lundi ak vendredi bu jot ak mercredi bu jot ah ci Télé Sénégal waxtu wi ak 17h nañ leen indil ay plateau yu am solo fii nii ci ci Télé Sénégal donc mën ngeen dugg en direct tamit di participer ci waxtaan wi jaaree ko ci 77. 810 90 90 may jaajëfal bu baax a baax les sauveurs euh, mi nga xamante ne moom moom <laughs> moom dafa mel ni moo la moo lay lay lay topp euh, di ko jaajëfal bu baax a baax moom lay sauveurs Tony Mendy ak yow mi nga xamante ne yow yaay yow yaay Ndoye di la jaajëfal bu bu baax a baax a baax a baax a baax di jaajëfal ñëpp ñi nga xamante ne vraiment ñoo ngi doon participer ci waxtaan wi depuis 11h45 le rendez-vous c'est à 16 incha allah ci point de presse bi nga xamante ne Ousmane Sonko dina ko def quant à moi je vous donne rendez-vous demain comme chaque jour mi nga xamante ne ci programme. Télé Sénégal waaye itam émission bu am solo bi leen di defal mercredi à partir de 17h incha allah lépp rek soo leen toppee eh, chaîne digitale bi di Télé Sénégal dalal du leen ci eh, rëcc ah, c'était kaddu askan wi ànd ceeg Jérôme Dione di jaajëfal bu baax a baax sama réal sama réalisateur ah, moom mi nga xam ne tey moom xaw na maa rey. feebar naa waaye nag ñoo indi na ma fii pour liggéey <laughs> donc mbokk yi maa ngi leen di jaajëfal incha allah di leen wax rendez-vous juste ci de 16h ci point de presse bi nga xamante